ñu ngi am occasion bu toll na mën a toog ak Chérif dara Aïdara Tijani mu di ñu waxtaanal ci kenn ci jëmm yu sell yooyu ñuy xeñtu ci seen émission bi ñu dippee fii Rahabi Salihin euh, fii Rahabi Salihin nag dafay toppi jéegoy mag ñi yenn saa yi mu jël ab yonent waxtaane ko waxtaane risalaam wala mu jël ab bindkat waxtaane ko waxtaane mbindam ya wala mu jël koo nga xamante ne ku jëf dara la ci lislaam ak foo ko mën a liggéey ci biir Sénégal ci bitib Sénégal ci àdduna bi yëpp ci nit yi lislaam yi dinañ jéem a xencu say mm, jéego dégtal ko nit ñi ndax nit ñi mën cee roy ndax nit moom du roy lu dul li mu xam wala li mu xeemeem te yaakaar naa dund mag ñi buñ la ko nettalee di nga ko xeemeem pour mën koo roy loolu nag mooy sababu tey euh, ay bis yëpp di passé ci rajo bi yéen a ngi dégg ñuy waxtaane ay kilifa kilifa gu nekk nag ni ma koy waxee ni dañuy ubbi ñun suñuy buntu ba am na ci kilifa yoo nga xamante ni du ñun sax ñun ñoo leen xam ndax suñu gàtt xam-xam moo tax xamuñu leen euh, waaye dina am ñu leen xam ràññee leen te man ñoo jokk bu ko defee bu ngeen ñu jokkee rek yëgal ñu kilifa googu ñun dinañ def suñu ay moyens yëpp yi ñu am pour mën a waxtaan ci dundam ak jaar-jaaram liñ ci jublu rek mooy wax jooju nga xamante ni ju wér la ni wax jigéen di waxtaanee gars yàlla yi ci la yàlla di wàcce yërmaane seen kaw te loolu rek la ñu bëgg mooy yërmaane yàlla baawaanal ko ci mboolem nit ñi te itam ku nekk da nga war a xam sa ndono xam-xam gën a rëy mooy xam sa bopp waaye itam ku xam sa bopp xam nga li gën a rëy ku xam lépp nag réere sa bopp xamal ni xam nga euh, li gën a tuuti réere nga itam li gën a am solo mm-hmm. yal na yàlla boo boole ci ñi gën a am ñiy xam seen bopp te bañ koo réere fa tabaarakallaahu Chérif ay dara tey ñi ngi waxtaane jëmm joo nga xamante ni waxtaane ko xam naa mooy waxtaane alquran mm-hmm. waxtaane ko mooy waxtaane mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu salaam ak la mu làmboo waaye waxtaane ko mooy waxtaane euh, xadra bi di tijaan tijaaniyatu gi nga xam ci la nekkoon mm-hmm. waxtaane ko mooy waxtaane Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiallahu anhu mm-hmm. bu ñëwee nag ci biir këram muy Seydi Xaaji Maalik Si mm-hmm. radiallahu anhu bokk na ci njabootam gi ñu mujj a gis euh, yaakaar naa ne ci histoire dafay wér ni moom mooy doomi Cheikh Seydi El Hadji Maalik radiallahu anhu yi nga xam si mooy euh, caatam comme niñ koy waxee fii ci suñu suñu réew yi muy El Hadji Habib radiallahu anhu El Hadji nag am na ndaw ñu ko miin xëy na ci photo lañ ko miine mhm. waaye am na nit ñu ko miin sax ci toog ak moom mhm. daan jonjoog moom mhm. di ko topp di jël ay euh, ay enseignement am yoo nga xam si da leen koy da leen koy jox ay orientation yu leen di defal am na itam nag ñu ko miin bu baax a baax ndax yàlla dimbale woon na ko lool ci wàllu wërsëg ci liñ jot ci taarix euh, mu nangoon mu nangu woon a liggéey daan santaane liggéey am na sax waxtaan bu may dégg Serigne mbay Sy Mansour di ko wax mhm. mu ni bari na ko nga xamante ni ci fonds commerce ba nga yor mhm. di ko liggéeyee tey mhm. ci Alaaji Habib Sy radiyallahu anhu la bàyyi ko daana nekk Sénégal lu bari waaye itam ku miinoon Gàmbi la loolu itam xam nañ ko kooku ñuy bëgg a waxtaane xam naa ne li nga ci xam pour man ñu ko wax mooy ëpp fuuf ñun dañuy for ci mbedd mi rek li ñuy for waaye nag góorgóorlu nañ ba la ñuy for dañ koy fexe ba di ko jëlee fu wóor ndax bëgg li ñuy wax itam mu nekk lu lu wóor looloo tax tey ñu ñëw ci yow mi nga xamante ni boo ñu ko euh, waxal boo ñu ci waxtaanee la rek ku koy dégg dina xam ni jëlee nañ ko ci fu wóor a wóor a ñu bàyyi la nga nuyoo pare ci door a dugg ci jëmm jooju incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki auditeurs yeeg auditrices yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara mooy ñiy déglu ci góor ñi ak ci jigéen ñi ci mag ak ci ndaw euh, di nuyu suñu mbokk mi ñu toogal di mbokkum daara di al ustaaz alxaaji Malick Fall ak mbooleem ñim seqal liggéey bi dale ko ca PDG ba direct mooy président directeur général alxaaji Sidi Lamine Niass di wàcc ba ki yore programme di di al ustaaz Hassan Diouf ba suñu mbokk ma sëñ Haadi ñas ak mboolem technicien yeeg ñay liggéey ci rajo baak télé ak ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaara di ndokkeel réew mi yëpp ak àddina bi yëpp di ziyaar ñëpp hmm. eh, ni nga ko waxee nag ñu fas yéene waxtaanee ci jëmm joo xam ni kenn la ci njobootu Seyd El Hadji di dogit ci moom waaye di caatam muy ku ñu xam nag muy sëriñ Habib si mu doon ku yàlla baaxal gannaaw bi ko Seyd xaaj Hadji Malick ndax mbaax rek mu ngi yem ci Seydi Aj Malik di sa baay di sa waajur fa la mbaax yem mu dolli ci yëfi boppam nag ba fa tabaarakallaahu lim am tey mu am ko xam naa buñ duggee ci waxtaan wi ñun ñëpp ñu bokk ci dëglu waaw mm-hmm. uh, jërëjëf kon Chérif Ibrahima Aïdara uh, Sayid nga jege ñu rek ñu am lu ñu yëkkati ci ay bayit xam naa nga waxal ñu ci El Hadj parce que moom itam ku bind la doomu Seydi Hadji Malick li leen yàlla defal mooy ñoom ñu bind lañ seeni wax ni nga ko doon jàngate bi ñuy dund di ko dégg ñu la koy wax noonu lañ koy yaxale bind ko waaye itam noonu ngay jàkkaarloo ko ay jëmm ci ay góor ak jigéen yëg ni ñoom ñoo leen defar tabarakallahu bañ mel ne ñu mel kon sa it ñu bàyyi la nga yëkkati ci bayti alxaaji Habib si radiyallahu anhu ajab ibni malikin wa imamina liman fata man aaza kulla faxaare ajabib si malik ne ajaban bi bid'atin malikin wa imamina liman fata man aaza kulla faxaari ajabib ne fa baqil baqil min saydi malaadinan man kaana xaatima asrihi walbaari ajabim neena alajab dua si malik ajaban bi bid atin malikin wa imamina نيم الفتى من هذا كل فقري أعجبني أعجب بس مالك الله وأنت والد مالك شيخنا ذاك الذي هو أمدة الأخيار نال الولاية والسعادة والتخاء بأمانة وعدالة الأبرار وقيم كايد ذي العداوة ربنا يا كافي الأبرار والأسرار وعسم اسم رجل تقييم وعونه ومن الوسائل رب بالمختار الحمد لله الذي قد قصنا بإمامنا من مركز الأنوار ثم الصلاة مع السلام على النبي مع الآل والأسابيل أداري barakallahu mbokk yi kon ko ngeen di dégg mu yëkkati noonu ci bayti alxaaji Habib si moom mooy sayid tabarakallahu xam naa ni kontaan ngeen yéen ñu koy dégg ñu ngi koy ñaanal moom itam bu baax a baax fa tabarakallahu Sëriñ ay dara ñu tàbbi nag ci waxtaan wi te mooy waxtaane alxaaji Habib si mm-hmm. alxaaji Habib wax naa léegi ci biir e, émission bi kani moom mooy e, caatum Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mm-hmm. waaye te nga nag niñ ko xamee caat e, ñaare même ci suñu ci suñu suñu njaboot gi sax dangay gis ni caat toujours rek. Mm-hmm. waaw mu am lu mu làmboo. Mm-hmm. ci ay may ak itam ay ay karaama. Mm-hmm. alaaji Habib si. Euh, moom nan la demee ci kër Seydi Hadj Malick ginnaaw bi ñu xamee ni sax Seydi Hadj Malick mooy way juram. moom ban position la amoon ci kër Seydi Hadj Malick ak liggéey bi mu fi liggéey boo ñu ko doon tënkal ci noonu rek. waa Hadj Malick ñu ngi lay sant di la gërëm di wax ne sëñ Habib. nit ku yàlla baaxal la woon mu ngi gane àddina 1907 la gane àddina ca Tiwaawan ni ko Seydi Hadji Mansour magam defee ca Tiwaawan Charles Hadji Abdoul Aziz magam moom it ca Tiwaawan 1904 moom Sëñ Habib 1907 bim ganee àddina moom dafa dogal kiñ doon waxtaanee muy Seydi Hadji Mansour moo ko yar mm-hmm. Alaaji Mansour moo yar sëñ Habib moom la ko Seydi Hadji Malick joxoon gannaaw bi ko Maodo jàngalee ijaazaal ko jox ko tarixa bi defal ko lim ko defal yëpp daf ko jox nag Seydi Hadji Mansour mm-hmm. moom sëñ Habib it jaar na Fass Touré na fa jàngee na it Ndar ca kër sëñ Mamoun Ndiaye del siwaat nag ci waawoon ci loxol way juróom sëñ Alxaaji malik ak magam Cheikh Alxaaji Mansour mu doon nit ku effacé wu nag ku naqaree waxtaanee sëñ Habib ndax léppam daf ko nëbboon lim mënul ñàkk mu feeñ rek moo feeñ Cerno Yaxya bi may faral di tudd nit ñi di ko dégg ci sama làmmiñ lu bari sëñ Habib si moo tax ma xam ko ndax taalibe sëñ Habib moo tax ma xam Cerno Yaxya bu ñuy wax ba Badara Mbay nekkoon fii ci pikin daan jaay yàpp sëñ Habib nit ñi nit ñi di ki ki nit ñi di xeeb sëñ Habib moom la daan téye sëñ Habib miinoon nañ ko ca Tiwaawan waaye miin ko fii ci këram bii ci Caaroy muy doomu Seydi Hadji Malick ak soxna Safiyatu Ñang juddu 1904 génn àddina 1992 1992 ak 1907 ñaata la. 80. Hmm? quatre-vingt-cinq ans juróom-ñett fukki at ak juróom xam nga kon la moom it dund naa silaf waaw am na juróom-ñett fukki at ak juróom bi muy génn àddina moom it Seydi Hadj malik moo ko jàngal ba mokkal alquran mu rafetalee alquranam ca Fass jaar ndar jàng fa ci xam-xam mm-hmm. ñibbisiwaat nekk ci ron way juróom ak Seydi Hadj Mansour magam bi muy moom it bi muy am juróom-ñetti at jëm juróom-ñeenti at la mokkal alquran Sidi xaaj Malick jàngal ko fiq jox ko alaaji Mansour mu jàngal ko lenn ci xam-xam jàngal ko lu bari ci asraar moo tax Sëñ Habib it néew na ku ko gën a xam la asraar te dinaa ci ñëw ci kanam Sëñ Habib doon nit ku nit ku dëddu woon àddina mhm. ca àddina wuyu si ko nag xam nga nit ñi dañuy jaawale ko ku dëddu àddina ko àddina dëddu waaw bari na ko naan dama dëddu àddina déedéet àddinaa ko dëddu jotu ca waaye kii nag dafa dëddu àddina àddina wuyu si ko sëñ Habib moo njëkk a jox sëriñ Babacar si àddiya million million million million moo njëkk a million jox ko sëriñ Babacar si àddiya moo njëkk a un million jox ko magam alaaji Mansour àddiya noonu la ko daan defalee si ñabdu ku yàlla teeloon a ubbi ci wërsëg la te dinaa ci ñëw ca kanam dara may ko ko lu dul liggéey am na génn góor gu baax gu nekkoon Congo mm-hmm. moo ma nettali nee na bi may nekk Congo boo gisee du may tudd tur léeg xëy na bam la koy nettali du bëgg ko xam turam mm-hmm. ndax njaboot mu ne ba may nekk Congo dama fa def fukki at yoo xam ni lu ma añee sax dafa may të mu ne ma dégg na sëriñ Habib doomu Seydi Hadji la ñëw na Congo ndax daf daan tukki mm. lu bari mm. dinaa ci ñëw ci kanam mu ne ma dem ziyaare ji ko waxtaan ak moom ne ko man de def naa fa fukki at waaye lu ma añee sax dafa may të ma bëggoon daal nga ñaanal ma yàlla mu ne sëriñ Habib ne ko mokkal nga tey siir mu ne ko déedéet mu ne ko waaye soo amee téere bi di nga ko mën a jàng mu ne ko mu ne sëriñ Habib génnee téere tey siir jox ma dama demal ci ruq bale jàng ko ñetti yoon nee ma toog ci ruq ba jàng tey siir ñetti yoon ñëw jox ko mu ne ma demal incha allah ba bési tey bi del si nga ñëw waaye demal nga liggéey góor gi nee na booba dama daan gas jama jamanteer la woon mu ne ma dem rek gas yem ci boo xam ne bi ma indee ñu xayma ko cinquante neuf million la woon ci jamono booba mu ne ma jaay ko bés bi del si ma ŋàbb xaalis ba ak lépp ñëw ci sëñ Habib ne ko ah ba ma fi ñaanalee ba tey de ci diggante bi lii laa fi am cinquante neuf millions mu ne ko dawal nga ñibbi Sénégal sa ñibbi jot na loolu laa bëggoon lool rek laa soxla woon loolu rek laa soxla woon dawal ñibbi Sénégal sa ñibbi jot na góor googu ba fi may waxee yow ci loolu lay tedd. mu ngi mu ngi dund ay njabootam a ngi dund. ci loolu lay tedd. Mm-hmm. oto bi sëriñ Babacar si daan dugg di dem juma sëñ Habiba ko jëndoon jëndal ko sëñ Babacar si. oto bi daf daan yóbbu sëñ Babacar si wëññeeku ñëw fanaan si waat Dakar góor gi ko daan dawal laa fàtti turam. Mm-hmm. xëy na mu ñëw ci biir waxtaan wi mu ngi dëkkoon caaro yi mm-hmm. par alxames la daan dem fanaani tiwaawoon bu fanaanee tiwaawoon yendu ba góor gi di dem juma mu dugal dugg ci oto bi mu yóbbu ko juma bu góor gi ñëwee mu wàcceewaat ko bañ añ ba noppi mu door koo tàggu sëñ Babacar si yeewee ko mu del si waat bu ñëwee day dugalaat oto bi ci garage bi xaaraat beneen alxames góor gi nag bési yàlla nattu ko soxnaam am doom bési alxames ngénti li wala nekk bési alxames te faaw mu xëy dem Tiwaawan mu ne sëñ Habib ne ko xaw ma kan waaye yow ngénte li doo ko fekkee de dañ koy tudd sa gannaaw mm-hmm. mu ne ko sama soxna de am na doom bu góor mu ne ko waaw danañ ko tudd sa ginnaaw ndekete góor gi it kam mu jox tur wa daf ko ne duppee ko sëriñ Habib ndax fi lim ma defal ci àddina ak fi ma jaar ak moom li nga wax la si moom la sëriñ Bay Mansour wax sëriñ Habib oto bu mu mës a jënd ki yoon yónni mu di ko jëndi turam lañ cay def est-ce que dégg nga li ma la wax bu baax. masalan tey bu la yónni woon ne la xaaji Malick Fall demal jëndali ma oto ci parking wu Sam Ngam. Mm-hmm. boo ko ne ban tur liñ ciy def mu ne laa xawla wala quwwata def ci sa tur. boo ci defee sa tur boo ñibbisee àddina du yàgg ba sëñ Habib ne moo moom oto bi bari na ku am oto tey yaa ngi ko amee ci loxol sëriñ Habib. ndax noonu rek su demee ba ci yàgg mën na la fafal jël. amul benn oto bu sëñ Habib jënd def ci turam yow ma koy jënd lay wax ne def ci sa tur chauffeur ba koy dawal ñaari la ci ëpp turam moo ciy nekk te ci loxoom lay mujj ci wàllu tapp rek xam-xam ni mu ci ubbeekoo woon mhm. magam moo ko ci ubbi woon ak ndigal ci ndigalul baayam mhm. euh, ci entre bu gàtt balaa ñuy dugg ci jaar jaaram mhm. dem na fii ci Côte d'Ivoire moom sëñ Habib ñim daan def tournée yooyu mu daan def dem Côte am góor gum fa taseel ñaari nitu yàlla yoo xam ne kenn ku ci nekk la yàlla may daal rëy na ñu yëg ne doomu Seydi Hadji Malick ñëw na Côte ñu dem seeti ko ziyaare ko di waxtaan xam nga nitu yàlla yi bu ñu yéete wéetee ñuy waxtaanee ci wàllu yàlla ku njëkk benn nitu yàlla bi ne wax morom ki ne ko yow loo mën ci wàllu yàlla mu ne ko mën naa jël léegi dugub wàqi sama loxo tuuti rek def ci dugub ji suul ko sotti ci ndox yor sama kurus di wax li may wax mu mu mu jebbi ci saasi doon doon pol doon pol ci saasi pol pol mooy bant bi nekk gub mm-hmm. gub mooy fa dugub ya di nekk mm-hmm. pal pal ci saasi mm-hmm. genre tontóor ñor ci saasi ma góob ko ci saa si ci lu matul juróomi minute mu ne ko defal sëñ Habib a ngi toog di leen seetaan lii sëñ Habib moo ñu ko nettali ca Tiwaawan ak góor ga mu àndaloon nee na ñuy ñu xool góor gi jël dugub ji def suul sotti ci ndox yor kurusam ba lim wax yépp am mu góob dugub bi jox sëñ jox sëñ Habib bi mu ne ko ah jàmbaar nga de lii de ku ko mën ci wàllu yàlla jàmbaar nga keneen ki ne ko mu ne keneen kilo loo man kooku ne ko gub bii mu daaneel moom laay jël moom mu jël gub ma benn nitu yàlla fëgg ko ci suuf mu nekk oto Mercedes moom gub bi mu soppee ko oto nekk Mercedes mu ne ko bii bu la neexee dawal ba ba mu yàqu oto la dégg nga wax mi xam nga am na yoo xam ne sax kiraamatul ay nii la mhm. bu yàggee tuuti rek du mu nekkaat lam nekkoon mhm. waaye daf ko ne bii du soppeeku oto lay doon ba bés penc ñoom nag ñuy werantiku ci mën sëñ Habib mu nekkoo dëgg dëgg nag jàmbaar nga waaye ku njëkk kee la mën mu ne ko mbaadu da nga koo faral mu ne ko déedéet ndax moom lim def dafa am roox te yow li nga def amut roox loolay différence bi mu ne ko dugub dafa am roox te oto amul roox kon ki def lu am roox moo la mën ci wàllu yàlla góor gi ne ko nangu naa kon bu xamuloon dara ci lasraar xamul dara ci turi yàlla xamul du mën a tàqale loolu kon cër bu mu amoon ci yàlla rek feeñal na foofu ne am na lu mu xam ci li xam ci yàlla bari na sëriñ Habib dund ak Seydi Mansour dund ak sëriñ Babacar si dund ak Cheikh Alhaji Aziz effacé wu nag nangu la nekk dara ci seen kanam sëriñ Habib mosul nangu ci dundam fukki nit wër ko buñ matee juróom-ñeent mu royee ko ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane buñ matee juróom-ñeent moom muy fukkeel mu ne wàññeeku leen dem leen dem leen dem leen. moo daan waxtu yi juróom yëpp ci zawiya ba la ko daan julli fala daan wasifa fala daan xadara mm-hmm. bi bi mu feebaragul nekk ci kàttanam mm-hmm. lépp ca jàkk ja la koy defee bu ko defee ba noppiit bu fa sëñ du nekkut day waxtaan ñii ko sëñ Abdou di defee maa ngi kaset yi am na bés ci waxtaan wu tàng mu ne da ngeen yaakaar ne man dama fi nekk pour xaar Abdou dem ma doon na ko mu ne man duma doon duma nekk xalifa Maodo Abdou fi toog ba ba mu koy soob mu dem waaye man Habib du ma toog ñu naan maa wuutu Abdou du am du am du am mukk nii la ko waxee maa ngi kaset bi ba fi may wax ak yow ci ma maa ngi ko denc du am mukk du am mukk abdu du du du mag ci man bàyyi ci man la kenn waxtaan woowu sëñ ab doo nga fa woon dafa waxtaan sëñ Habib dafa wax ba noppi sëñ ab du jël kàddu pour wan la digganteem ak magam ñi ku ci nekk moom it daf la tarbiyu mhm. sëñ Habib Mm. wax naa la ni fim jaar ak sëñ Babacar si. Mm. moo ko njëkk a jox million ci àddiya. oto bi daan yóbbu sëñ Babacar si muy julli ji juma sëñ Habib moo ko ko moo ko moo ko jëndoon. Mm. jox ko sëñ Babacar. noonu la ko defalee magam alxaaji Mansour noonu la ko defalee magam. alxaaji Abdul Aziz baax sëñ Habib bu jógee waan bu tukkiwulaan bu nekkul Tiwaawan mu ngi fii ci këram bii ci Medina. Mm-hmm. ci boori RTS. Mm-hmm. wala ca asawu nag bëggul kenn xam ko ci dara li muy sol sax buñ la ne kii doomu Seydi Hadji Malick la moo ko gëm sëñ Abdou nee na am na bés may jógee Tiwaawan ñëw Dakar ñëw ba Caaroy rek jàdd ndekete sëñ Habib a ngi ci kër gi sëñ Abdou ñëw toog ci suuf toog ci suuf sëñ Habib ne ko góor gi jógal nga toog ci kaw maa war a toog ci suuf mu ne ko déedéet abi ñëw yi ma fi daan ñëw di la ziyaare ak bii bokkut mu ne ko bi ma ñëwee ba jub kër gi laa seen Cheikh Omar Fouti ak Cheikh El Hadj ak Cheikh na Tidiane ak yonent bi di génn ci kër gi dama ñëw pour barkeelu ci ñoom mu ne ko bi may jub kër gi laa leen seen ñuy génn ma ne kon naa dugg barkeelu looloo ma fi di tey de dama ñëw pour ziyaare hmm. kon nga xam ne borom cër la woon lii may wax it Cerno Yaxya li moo ma ko nettali mu ne xaaji Abib kaana min al mafatihul kunuuz mhm. ñiy séddale trésoru yàlla yi mooy xutbu yooyu ñuy wax mafatihul kunuuz mu ne sëñ sëñ Habib ca la ñiy déglu pour ñu xam luy mafatihul kunuuz mhm. yàlla wax na lillahi xazainu samawati wal ard mhm. maa moom trésoru asamaan ak suuf mooy séddale séddale boobu nag moo taxoon yonent bi joxoñ dënnam waaw joxoñ dënnam ne noo ko waxee rek aw ka allahu huwa almuuti wa ana alqaasimu wala nga ne wallahu huwa almuuti wa ana alqaasimu yonent bee ko waxoon joxoñ boppam ne yàllaay joxe de waaye may séddale nag ñay séddale nag yonent bi bu séddalee ba nopp day jox aqtaab yi ñu jox mafaatiwul kunuz yi ñoom ñoo koy wàccee nag jox awliya yi ñu wàccee mafaatiwul kunuz yooyu nga xam ne ñoom la yàlla teg trésor public bu yàlla mm-hmm. li am yépp ci seen loxo la ko teg te juróom-ñaar rek lañuy doon zaman bu ne juróom-ñaar kott la ñuy xutbu yi doon juróom-ñaar muy fukk ak ñeent juróom-ñaar yooyu sëñ Habib ca la bokkoon kon kay fa la yem mm. li may wax de Cerno Yaxya li moo ma ko wax Yaxya li mi ko wax ca la bokk ndax moo ma wax moom Cerno ci gémmiñam ne ma turi yàlla wi nga xam ne ku ko xam fukki mond yi ak juróom benn balaa ci yàlla di def dara diisoo ak yow mu ne ma Yaxya bi ma koy xam fukki at ak juróom ñaar laa am mu ne ma bi may gis sa maam yonent bi yàqazatan laa manaama mu ne fukki at ak juróom ñett laa am mu ne ma baabate booba duma tiijaan nga xam nga suñu réew mi wax yu mel nii dafa yomb dafa yomb dañuy wax ni dafa am waxtaankat buy wax ni mm. euh, da nga dégg ku ne man gis naa yonente bi nga dégg ku koy wet naan loolu mënta ne loolu mooy li muy tegtale mooy yow yow yow moom yow moom doo gis yonente bi rek yow bokkul ñi koy gis waaye lépp lu lu ñu wax ni nitu yàlla am na ko rek mm-hmm. doy ci dana doy nga gëm ko ni yàlla mën na ko maye parce que yàlla lu mënta maye amul parce mm-hmm. mooy borom lépp xam nga loo koy déggee mm. deux mille euh, ñu ngi ci lan deux mille douze. deux mille onze. ku noonu Macky Sall yaay nekk président de la république du ko gëm. déedéet. moom ci boppam sax gëmu ko woon. gëmu ko woon gëmu ko woon. tey kuy dogal ci réew mi bu la dogalut doo dog. Mm. wala déet. te léegi mu jóg ci loxo keneen jël ko. Mm-hmm. ndax koo wuutu rek bàyyi ñi la wuutu toog nañ ba pare yow. Mm-hmm. moo tax wuutu koo wuutu rek ka nga wuutu toog na ba pare di la xaar moo yooyu ku ko weddi cheikh la cheikh Sidi Ahmad Tidiane waxoon nee na maqaama yàlla yi ku ci weddi benn boobu moom doo am ñàkk nga ko moo tax weddi garaaw ah oui dafa garaw mhm. entre parenthèse mhm. li ñuy waxtaanee sax dugg na ci muy Serigne Habib mhm. ndax li ñu wax ci maqaama lenn ci li ko yàlla jox moo indi waxtaan wi cheikh Sidi Mohamed Al Ghali dafa laaj cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi ne ko taalibe kañ lay fer ci sëriñam ni ni ni liir di feree ci yaayam namp soow Cheikh Sidi tiijaan yi ne ko su dajalee ci xam-xamu sharia lañ ca soxla kon nga déggee ñi ne xam sax am na luñ ci soxlawul mu ne ko mu dajale ci xam-xamu baatin lañ ca soxla nga déggee ci ne xam-xamu baatin am na luñ ca mu ne mu jël tànku ndeyjooram teg ko ci sharia jël bu càmm teg ko ci sunna di jëfee xaqiqaam mm-hmm. mu ne dana yegg ci maraatib day waddu sëriñam ci leeru yàlla yi mbubbi leer yi mm-hmm. di ko nàndal ci kaasu leer yi Seydina Cheikh mooy wax radiyallahu an mu ne waaye loolu yëpp bu ko sëriñ bi di defal taalibe bi ker bu ko wonee ne moom taalibe bi bu wonee sëriñ bi ne ko ci sama mbubbu leer yi ngay sol ci sama kaasu leer yi ngay naanee mu ne ker bu ko ko wonee daañu dajee ci diiwaanu lawliyaaw seppi ko ci lépp yàlla ba mu set sànni ci biti ndax ñàkk kersa ak ñàkk teggin bu mu def mm-hmm. ñu ne ko nooy def mu ne koy xam-xam-xam sukk ci suuf di raam di joxe àddiya loo ci dégg mm-hmm. mooy maqaam kenn du ko amaguma ko rek te bul ne sa awuma ko neel amaguma ko ndax wa anna al fadla bi yadillahi yuutihi man yasha man yasha wallahu zu fadlin azim mbuusum yàlla la ca ne yàllaay seppi lu ko neex mu jox la ca fa tabarakallahu sëriñ Habib nag di ko teel a cëru ndax loxo yim jaar sëriñ Babacar si liggéeyal ko benn seconde rek doy na jaamu yàlla Sidi Hadji Mansour noonu Sidi Hadji Abdoul Aziz noonu mu nekk seen rakk nag ngu leen tarbiya mhm. wàcce boppam jël léppam jox leen nekk seen dak di leen dawal guddi ak bëccëg guddigal guddil leen bëccëgal leen naajal leen keral leen ba yàlla jox ko lim ko jox mm-hmm. mu effacé wu nag am sama benn xarit boo xam ne tuddee na ma doom man mii di wax ak yow mm-hmm. ñu koy wax Moustapha Fall ca Tëngéej mm-hmm. tey jii fii may wax ak yow mooy imaam raatib bu jumaa ja ca ndar gu ndaw ca Tëngéej tuddee na ma doom ki ma tuddee mat na fukki at am na fukki at léegi mu nga ca daara ja di jàng kon li may wax xam naa ko Moustapha al imam taalibe sëñ Habib la moo ko joxoon ndigal ci say fiyu jox ko ci lim bu takku loo téeméer ne ko defal ma ko ci juróom-ñaari fan <laughs> loolu noo koy jànge ëpp na téeméer say fiyu laa wax de nee na ma nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca ba waa ji jeex daanaka yeggut mu ne ma benn benn bëccëg rek ma toog rek mu ne ñëw tinki sama làmmiñ ci say fii may toog di wax ak yow nii deux minutes ci lay jàng saw say fii ndax mokkal ko ak ubbeeku bu ci am xam nga say fii rek sama kalaas gii rek maara day taale boo ko bëggoon jàng trente minutes mhm. <laughs> wala vingt wala mhm. moom ci deux minutes la koy jàng Fall fi may wax mu ngi dund ba tey hmm. yal na yàlla guddal fanam dafa war a dem sax Màkka ren kon li may wax xam naa ko te sëñ Habib moo ko ci ubbi sëñ Aman Njaay Aro ca Bushra du xam nga ko sëñ Habib moo njëkk fanaan ca Bushra ba ko sëñ Aman Njaay Aro rab ba fa nekkoon sëñ Habib moo ko fa génne moo tax taawam Habib yàlla guddal fanam mooy xalifa sëñ Ahmad Njaay Aro hmm. tey jii mooy xalifa ca Buurba sëñ Habib lañ ko duppe ndax wëllëre wu doxoon diggante sëñ Aman Njaay Aroot ak sëñ Habib kon nga yëg ne sëñ Habib ku teel ami may na noonu la daan def mu di dox ci biir senegal di dox ci biir Afrique di ko doxal ay magam bari na lu naroon a ñaaw sëñ Habib moo fexe ba mu rafet bokk na ca 1981 man mii di wax ak yow 1981 coup d'état Banjul boobu ku koy sama saañang ak Daouda Kayraba Jawara fa la ma fekk man mii di wax ak yow fa lillahi alhamdu wa shukru Banjul la ma fekk ndax 1978 ba 1984 maa ngi dégg nga li may wax bu baax léeg rek ma ci ñëw waaye bi di am kenn ñemewu la wax sëñ Habib moo jël rajo bi wax ca Banjul booba kenn ñemewul génn sax may wax moom kañ ca sa biir néeg ngay dugg sa ron lal ba sax yëkkati lal ba dugg ca biir mm-hmm. nëbbatu ndax bañ ñu rey la boobu dañ doon rey nit ñi comme weñ sëñ Habib la nit ñi këram la nit ñi doon rëccee ku dugg kër sëñ Habib rëcce nga mm-hmm. mu sol fekkewuma ko nag waaye góor ga ko fekkee net mu sol bolog boo xam ne ndax booba neewuma ca këram man mm-hmm. maa ngi woon ci àddintin number 44 44 Adintine tey foofa imam Thierno mooy imam ratib bu Banjul xam nga Sénégal dafa naqare waxtaane mm-hmm. imam Thierno Ka mooy imam ratib bu Banjul tey foofa la dëkk booba kër baayam la alaaji Aliou Ka maam Maas Ka moo ko mm-hmm. alaaji Aliou Ka moo fa dëkk ma nekk fa